un peu à ta question ñun nous sommes directement rattachés à la Sonaged c'est-à-dire ICG la woon après mu varié dem la Sonaged ñenn entreprise yi dañoo am ay contrat parce que dañu passé woon par marché d'appel d'offres ñu soumissionné gagné donc yeneen entreprise yi dañoo ñëw pour par des appoints yoo xam ne ay ordre de service direct yoo xam ne waa Sonaged ñoom ñoo leen koy defal parce que mbalit mi boo ko xoolee comme ni ma leen ko waxee léegi normalement c'est une compétence transférée mais xëy na xam nañ ne suñu communes yi amuñu assez de moyens pour mën a supporter loolu état bi suppléer leen ci loolu léegi nag état bi aussi ki ko fi nekkal moo doon ICG ICG léegi dafa dem vers une société nationale bu ñu tuddee la Sonaged donc nous sommes directement liés avec la Sonaged